ñu jël ku nekk ci ligne bi aussi euh, dem na mën nga woyal di mën ngeen woyal di woote ci 78 233 28 55 ñu jël ku nekk ci ligne bi. Allô. allo oui. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar tur beeg fan nga ñuy woowee. maa ngi leen di woowee góor am di Bambilor man la Ibrahima Anne. Ibrahima Bambilor ani waa Bambilor Ibrahima. waaw xam nga waa ñëpp a xam nga man seen débat bi. Mm-hmm. nga dañ toll ñun dañ toll si jamono boo xamante ni. Mm-hmm. luy fay Sénégal ak lu koy doxal. fin mm-hmm. na baaxul. dëgg la. du ci pouvoir du ci position. parce boo xoolee tey instant bi sunu rakk yi. wala jàngi jàngi ñu. di la doom yi war nañ jàng jànguñu. mag yi war nañ jàng jànguñu. Mm-hmm. ah liggéeykat yi mënuñoo sax muñu sañ liggéey. yi mm-hmm. nga la ma la jox benn anecdote 2011 moom mu fekk à Mali. Mm-hmm. coup d'état 2011 Mali la ma fekk. waaye képp kuy ñaan musiba. loolu da nga fekkee wut fu ay ay bag di génn wala fu ñuy tiirantee. billaay yal nañ ci yàlla musal. ñun ba ñuy jógee foofu ba ñibbisi. moo tax su ma gisee xale di mars wala di génn. Mm-hmm. man ma fàttaleeku 2011 ñun suñu bakkan nana na na nana na ba ñu fekkee Mali. Mali. Mm-hmm. kon nit ñi nañ xamee doomu aadama bu nekk muy Macky Sall muy Macky Sall ñun muy sonk muy ku mun ko doon ci àdduna. Mm-hmm. njiit yi ñoo suñu sëriñ yi ñoo fi nekk ak ku ñun. tey bu ko sëriñ bi wooyee. war na wóor fekkee waxutaan jàmm la boo xam moo ñuy jëmle kanam parce que ñëpp ñoo ngi ne na président génn wax. na sonk génn nañ xool loolu moo ñuy jëmle kanam. moo ñu xool 2024. yàlla may Sénégal parce que imagine lu ñu yàq nii yëpp ñaat at ak président moo fi a toog defaraat ko. billaay bari na. Mhm. kon du ñu yóbbu fenn. fajul dara léegi année année balance bu amee. xale yi war a jàng ñu ne léegi jàng nga nga commencé at seen at yi est-ce que dañ koy wàññi. déedéet ñi nga këpp wax. nañ xool luy doxal dëkk bi ñun nii fan yi da bëgg a liggéey doo mën a liggéey. suñu askan suñu yëpp yàqu na. Mhm. ah ñu ngi jub si tabaski. léegi semence technique ay kan mooy di jëndal xalu tabaski kan mooy xotti seen njaboot. kan mooy defar defar defar kon nañu xool loo xamante ne makki ñi makki seen moom la fi yàlla fal. Mhm. bu fekkee jaamu wóor na ko moom jàmm si moom la ne maa ngi ko koy ñaan ngir yàlla. Mhm. mu doxal jaamu Ousmane Sonko bu fekkee dem wuy ji Macky Sall ñu am jaamu ñu dem jaamu ñun 88 fekk nañu fi 93. Abdoulaye dañ ko doon tëj taxul ne bu génnee day ñëw ànd ak pouvoir. dëgg la bu élection jotee mu kon mhm. nañu xool loo xam ne moo ñu jëmee kanam. kanam wante kii nii kii nii parce que ñun ñii di woote yëpp suñuy rak suñuy rakkee ñu si fanweeri nit ak ñett ñu si dee. bari na ay saabu lañ. Mhm. ñu si dee ku si nekk bu tëjoo seen image ak ah, koo maa ngi dégg koo xam ne nee na yaayam benn doom boobu rek la amoon. wala loolu ko si mais kan mooy jàppale yaayam. métti na ah, mhm. ban ban politicien muy mag ban politicien mooy falu. fàttaleeku ne wa sama doom kii de xeexoon na ngir man xaama jàppale ko amul kenn ku ciy jàppale. kon bu ñu nax suñu xel yi léegi mm-hmm. lan mooy sunu carte ku ci nekk ku nekk responsable la. wutal mm-hmm. sa carte électeur bu bés ba jotee nga dem voté ko la neex Sénégal bu ñu amee carte électeur ba ñëpp xam lu muy jëriñ. Mm-hmm. kenn sonnatul. dëgg la même mairie gox sax bu la diw bu bi ala kulli mu yàgg Macky dana wàcc. moo xam mu def beneen mandat mu bañ a def day wàcc parce que yàlla moom noppi na ko war a ba pare. dëgg gis nañ fi. Idi Yesa Seck laa la waxoon moo ne quatrième président ana mu fan la mujj. bu Sonko nee moom la yàlla di fal dina bu nekkee yàlla ne keneen. Mhm. ñii ñii yaay sunu Sénégal bu ñu fat nag am na yaay yu baax. Mhm. yaay yoo xam ne liggéey nañ seen i doom ëllëg mun nañ doon pouvoir mhm. kon nit ku nekk war na xamee Sénégal am na ñu làqatu téeméeri doomu aadama ñoo xam ne wallaay bu ñu génnoo yàlla teg leen ci kaw kon nañu nañ góorgóorlu ñu xamee ne li ñuy nekk yëpp affaire caaxaan moo ci ëpp. dëgg la nañ lakk nañ yedd suñu yi. ñu xamee caaxaan bu ñuy def amul benn ñu yàq bi. dund bi bu yokkee waa yi nañ ko yëg de. bien sûr courant bu jafewee danañ ko yëg gaz fu mu nii amul. danañ mhm. soxla gaz doo mun a am ak yeneen ak doo bilaay lan fu ñuy yóbbu lan la ñuy yóbbu. dara. mënuñoo xeex ba Macky Sall démissionné naa mënuñoo xeex ba ba Sonko falu te élection jotul. Mhm. kon nañ xool lu ñuy jëmle kanam lépp ku ciy wax nañ xool lu ñuy jëmle kanam. waa ne Macky nii Abdoulaye Wade nii Sonko nii Karim Wade nii ah, Khalifa Sall nii loolu amul benn njëriñ la moo nañ xool lu ñuy jëmle kanam. jërëjëf sëñ bi kàddu yi am na solo mhm. ñu jéem a xool lu ñuy jëmle kanam Sénégal loolu la vraiment sensible bi nag maa ngi koy suivre tout le temps mhm. wante dee leen dee leen dëgg moom moo njëkk moo mujj lépp loo leen di nekk da mhm. ko dëgg lal incha allah dëgg la amul maa def bu ko dëgg lalee parce que ku dee ak sa bàmmeel jàppale nit wala ànd ak nit ba tax loo xam ne wala bu man lima may wax yàlla daf Mm-hmm. aw ma benn problème loo xam ne tuumal Macky wala tuumal Sonko te aw ma ci yàlla dafa koy laaj xaw ma leen xamuñu ma mm-hmm. kon nañ xool lu ñu jëm la kanam suñu suñu lakk ñu moytu mm-hmm. ñu xamante ne adduna mu ngi jëm kanam de Sénégal yi dox di dem ñun dañuy dee bàyyi suñuy rakk ñoo suñuy doom ñoo suñuy leneen ñëw. maa ngi leen kàddu yi na solo sëñ bi. merci beaucoup. jërëjëf muy ay kàddu responsable ki nga xamante ni rek moom moo génn. léegi ci ligne bi wax dëgg yàlla mu wax kàddu kilifa wax kàddu yoo xamante ni kàddu yu responsable la euh, parce que nag nee na yàq bi nga xamante ni euh, ñu ngi koy yàq si euh, ñun rek lay lay lay delluwaat parce que nag suñu moomeel la tey boo xoolee tey ñaata sénégalais tey ñoom ñoo dem tëdd seen kër xëyuñu gontuñu ndax Auchan bi nga xamante ni taal nañ ko ndax Sonatel bi nga xamante ni taal nañ ko ndax tey euh, leneen ak leneen ak leneen ak leneen li nga xam taal na ko station Shell yi nga xamante ni taal nañ ko banque yi tëj mu nekk loo xamante ni euh, vraiment euh, pour man mënoon na ñàkk ci réew bu mel ni réewu Sénégal